951 49 44 tey ñu fas yéene andil xikma boo amati solo tukkee ci sunu yaakaar sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ci téeréem boobu ñuy wax si lukul jawaaxir di caqub wurus nga xam ne ni lépp ay njariñ la ak waar yoo xam ne ni dafay delloo jaam bi ci boroomam ci lépp lu jëm ci al xawfu ar rajaa wal xubb ndax yàlla moom lañ ko war a ragal lool waaye dañ ko war a yaakaar lool te sopp ko lool moo tax nettali yi nga xam ne nii day jógee ci sëriñ bi mu jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay dolli ab jullit ak ngëm dolli ko yaakaar waaye dolli ko tamit ragal yàlla euh, sëriñ bi mi ngi nettali ci nettali bii nag waxi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na yonent bi dafa wax ne guddi gim ràñaane ànd ak sayyiduna jibril alayhi salaam dem ca boroomam nee na suñu borom da ko wan àjjana yépp mu gis ca ñeenti dex yuy daw genn dex gi ndox mu sell la genn dex gi meew mu sell la genn dex gi sàngara su sell la genn dex gi lem ju sell la ju neex lool yu wuuteeg nag eh, yu àdduna yi wuuteeg goo xam ne ni mëne su koo gam-gamle te dex yooyu suñu borom tudd na ko ci alquran ci barab yu bare bare bare bare bare saa bu tuddee àjjana rek ñaari dana tudd dex yi mi ngi naan suñu boroom kat digg na jullit ñi way gëm yu góor yi ak way gëm yu jigéen yi àjjana yooyu nga xam ne nii ay dex dañuy balle ca moom te bu ñu fa duggee fa la sax du ñu génn ak ay nekkuwaay yu teey yoo xam ne nii Eh, neex ga ak melo ya ëpp na ba mën su ko misaal doomu aadama waaye nag ngërëmul yàlla moo gën a rëy lépp loolu mooy texe gu mag nag buñ demee ci suratu tawba aaya juróom-ñaar fukk ñaar suñu day wax ne wa'ada allahu almuminina walmuminati jannatin tajri min taxtiha al-anhar xaalidina fiha wa a tayyibatan fi jannati adnin wa ridwana min allahi akbar dalika huwa alfawz al-azim Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na bi mu gisee dex yi mu laaj Seydina Jibril ne ko waaw dex yi fan lañ jógee ak fan lañ jëm Seydina Jibril alayhi salaam ne ko fañ jëm de moom xam naa ko te mooy déegub Kawsara waaye fañ jógee nag xawuma ko da nga koy laaj sa borom déegub Kawsara nag mooy déeg ba nga xam ne ni ëllëg ña nga xam ne ni texe nañ fa la ñuy naani doog a dem nag àjjana te déeg boobu suñ borom moo ko may yonent bi sallallahu alayhi wa ba andil ko ci aw saar mooy inna axtaynaaka al kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shaani aka huwa labtar yàlla nañ ci yàlla boole mu daal koy laaj suñu borom tabaraka wa taala fi saasi rek am malaayka daal di koy dikkal moom yonent bi ne ko gëmmal mu gëmm tuuti mu ne ko xippil mu xippiwaat ay bëtam nee na yem ci ak garab goo xam ne ni ab xubba mu ngi ci wetam xubba moo yooyu di nekk ci jumaa yi tey ron yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xubba bi rëy na rëyaay goo xam ne nii buñ boole woon doomu aadama yëpp yëpp yëpp ak ginne yëpp teg leen ci kaw dañu mel ni menn picc moo ca tong nee na xubba bi nag ñu ngi ko defaree wurusu durra bu weex tàll mu am ñaari bunt yoo xam ne nii bunt bu ci nekk ñu ngi ko defaree wurusu yaa wu xonq bunt bu ci nekk am kànnaar kànnaar yi ñu ngi ko defaree wurus wu xonq wurus yu rafet a rafet yoo xam ne ni taaru ga ëpp na nee na ma gis ñeenti dex yépp di ballee ci suufu xubba bi yonent bi sallallahu mooy nettali nee na kon ma xam fi mu jógee nee na ma bëgg a wàññeeku malaaka mi ne ma waaw doo dugg ci biir xubba bi ma ne ko ah nu ma ciy duggee te xubba bi ñu tëj ko mu am kànnaar te yoruma caabi nee na malaaka mi ne ma yor nga caabi kay ma ne ko ah ana luy caabi mu ne ma mooy bismillahi rahmaani rahim nee na bi ma demee jege ba jub kànnaar bi daal ne bismillahi rahmaani rahim mu daal di ubbee ko nee na bi mu ubbee ma xool melowa ak yaatuwaay ga ëpp na nee na malaaka mi ne ma doxal tuuti bi ma doxee tuuti ma gis ñeenti koñ xubba bi koñ bu ci nekk ñu bind ca bismillahi rahmaani rahim nee na bismi gi ca la dexug ndox mu sell mi di balle nee na xëxug allaahi gi xë gi ca eh, soow mi di balle nee na miimug arrahmaani gi ca la sàngara si di balle miimug arrahimi ci la dexug eh, lem gu sell gi di bàyyi ko nee na sun borom tabaaraka wa daal ne ma yow Muhammad sa xeet wi ku ciy wax sama tur wi muy bismillahi rahmaani rahim danaa ko màndal ci ñeenti dex yi kon loolu dañ cey déggee solo su uh, bismillahi rahmaani rahim yi am kon kenn ku nekk war na koy fonk di ko wax lu bari lu muy dugg ak lépp lu muy def mu jiital ca bismillahi rahmaani rahim kon njàngale yooyu nga xam ne sëñ Tuubaa koy jàngal di ñu ci waar di ñu ci eh, bëgg jariñ ñu jariñu ci àdduna ak àllaaxir nañ koy fàttaliku di ko fonk te di ko jëfee ñoo ngi sant mbokki jullit yëpp ak mbokki taali bi yëpp rawatina ñu bokk ci jamhiya xikmatul yawmi ci seen taxawaay ci jàppale gi ñuy jàppale daara ji te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yere ak dimbalante ci sunu biir di ñaan sunu borom tabaaraka wa taala lu ci waay def mu fulal la ko te defal la ko naanuwaay ca eh, ñeenti dex yooyu ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci daraja Cheikhul Xadim te yokk wërsëg yi ak barke bi ak wér gi ñoo ngi ñaanit ku def dara ci numéro bi nga xam ne mooy numéro daara Hikmatul Yawmi boo mënee envoyé ci whatsapp bu numéro bi sa tur ak li tax nga def ko ci dana tax mu yombal ñu liggéey bi donte nag du ñu ñi nga xam ne ni ñoom dañuy def seen lu baax rek ngir seq ko ko yàlla képp ba tey ku ko taamu noonu itam baax na waaye ñi nga xam ne dañuy cotiser weer ñeenti téeméer ñaari téeméer ku ci def dara nga wax ko danañu yombalal liggéey bi ndax ñu mën koo bind incha allah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 in uridu illa al islaha mastata'tu ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh